alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa kaashifi l-ghumma wa shafi'i l-umma sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-a'imma wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi l-qiyama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 al oustaz Xasan Diouf ak personnel bi koy jàppale ci liggéey bi waaxu nañ ba Louga ca daaraay suñu maam ju tedd ja Mawlaaya Sëriñ Abbas Sàlla tànn fa benn ndongo bu ñuy tuddee Mouhamed Ndooy mu war ñoo jàngal ayat yi ñi war a firi di fukki aaya ak juróom benn ci suratu baqara foofu la ñuy war a bismillah مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يقعد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء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 الذي جعل لكم فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 ak ci njàng mu leer kalaaw nga jàng ko yal na yàlla wàccee barkeeb alquran ci yow wàccee barkeeb alquran timit ci say waajur yi la dugal ca daara ja wàcce ko ci sa sëriñ daara bi Seydina Alioune Sall ak ci mbooleem jullit ñi rawatina borom daara yi fu ñu mun di nekk yal na yàlla gën leen a dimbale. ayaat yooyu muy jàng. dafay mottali fukki melokaan ak ñett tolloog fukki aaya ak ñett yu yàllay wax ci munaafiqiina yi door leen a dugal safara waxoon nañ démb ne kufru ñaari xaaj la am na lu ñuy tuddee kufru ni'mati am lu ñuy tuddee kufrul mun'imi kufrul mi googu di ñeenti xaaj am na ca xaaj bu ñuy wax kufrul inkar ak kufrul juxuut ak kufrul inaat ak kufrul nifaaq kufrul googu nag la yàlla jël démb ba léegi ci lañ nekkoon yàlla nag gannaaw ba mu waxee seen bon bon ya ñoom munaafiqiina yooya mu bëgg a jeexalee seen mbir ci ñaari melo ci ñaari misaal ñaari misaal yooya bu jeexee rek mu dugal leen safara nag door a wax ci leneen la muy waxaat missaal mu njëkk mi dafa leen nirale ak nit dema dem ba ci biir tukki mi taw dab ko ci àll taw ba ànd ak lëndëm ànd ak sedd ànd ak ngelaw mu nekk ki ñetti lëndëm mi ci lëndëm ak niir yi nekk ci lëndëm ak guddi nekk ci lëndëm ak taw dana aajowoo lumière bu ko mën a niital ba mu mën a xam fi muy teg tànkam ndax mu mën ko yóbbu fi mu jëm dana aajowoo tamit safara wum taal wu mu mën a jaaroo safara woowu muy taal nag moo koy may ñaar yëpp ci mën a niitlu yàlla dogal nag mu am safara rek am na matt am na almet taal ba commencé jaaru ba xam fi muy teg tànkam rek safara wa jékki-jékki fay xam nga kon kooku nekk na ci natt bu méttee métti mu ñàkkoon ko sax te amut ko moo gënoon mu am ko ba ci kanam mu door koo ñàkk yàlla nag loolu la bëgg a misaal mu ne noonu lañ mel lim ci namm ba tax mu wax loolu dafa bëgg a wax ne boo nekkee am naa féq tudd nga baatu seede bi baatu seede boobu dafa mel ni dafa laa jural benn lumière lumière bi mu la jural moomoo ko mais da nga koo àbbu ndax gëmoo ko laa ilaha illallah gi nga wax tax na jullit ñi dootuñ xeex a teeg yow bu ñu xeexee dañ la jox ca màng soo amee doom bu jigéen dañ ko takk bu jullit ñi amee doom bu jigéen danga leen takk secret yi doon wax ci seen biir duñ la ci nëbbu dara kon yaa ngi ci leer waaye leer gi nag da ko abbu dafa mel ni loo abbu ci baata laa laay illallaah boo gëmul ndax li yonent bi noon umirtu an uqaatila naasa hatta yashhadu comme shahada am na nag kenn dootul xeexateeg yow kuy kuy niitlu ci leer gu mën a doon rek lumière boo mën di niitlu nga yëg nga ñàkk yëg da nga koo boo ne damay lu looy lu nga ne ci lampe lampe lan lampe courant kon courant bee la ko abal wala nga ne damay leerlu looy leerlu nga ne ci lampe torse bi kon torse bi moo la ko abal wala nga ne damay leerlu ci looy leerlu nga ne matt mi ma taal kon su boobaa loolu lépp moom moo ci dara dañ la ko abal kon loolu ni la leer gi abalee loolu ni la waa ji tamit baatab laa ilaaha illallaah fa mel ni moo ko abal leer googa mu am sécurité léegi nag sécurité ba dana bu bu deeyee nag day foone jàmm jooju mu amoon ci kaw suuf jullit ñi joxoon ko ko jàpp ne contrat la buñ signé woon ak moom muy foog ne leer ga dana ko fekk ci biir bàmmeel la mu ñëw fekk bàmmeel ba lëndëm turus jullit ñi ñoom seen bàmmeel ya leer muy jéggi siraat foog ne dana leer ba maanaam siraat lëndëm lool mu gis jullit ñi lumière baa ngi leen di leeral ñuy dem baa ngi leen di ñaan sax ne leen du ngeen ñu du ñu xool ngir yàlla ngeen may ñu seen leer gi ñu ne leen déedéet maanaam naq tamis min nuurikum ñu ne xiilar joxo waraakum foofa fekk dara fekk ñooy naqtabis min nuurikum ñu ne qiila irji'u waraakum kon leer ga di la leeral fii la lay jëriñee ci àdduna ba ba ngay dee boo kasee dee ñu coupé leer ga ci bàmmeel coupé ko tamit ci taxawaayu bis penc ci ko tamit ci jéggi siraat mën nañ koo kuppe sax bala ngaa dee ndax bu la bu yàlla weeralee yonantu bi ci yow rek sa mbir ma yàqu waaye loolu ti mën nañ koo dégg ci naafiq ak suñ jamono ji boo nekkee am naafiq ñi xamaguñ la mën ngaa yaatu ci pénc yu bari ngay wax gaa yi di wax di kenn du la nëbbu dara ku la gis du nopp waaye boo demee ba ñëpp xamee la ne yow am naa fekk nga da ngay toxal wax di jaxase ku la séenatir dañuy wax ne dañuy wokkante ne ah diwa ngi ñëw bu boo defar leen jotaay yi xam nga foofa boo ca yeggee kon xat nga yaa ngi ci ak lëndëm te loolu suñ penc bi ñuy yegg foofa bari na lool waaye boo gisee tamit yàlla nira leen ak mat mu ñuy taal wax ju am balaaxa ndax kii kii nit lu ba tax mu taal matt bu bëggee leeram ga sax foog muy xam bu matt ma rek bu matt ma manqué rek leer ga fay kon mu gëm ku ne gëm yàlla nekk am munaafiq ba tax mu doon leerlu li tax leeram ga fay da koo xambeewut mattam pas-pas ak mattam jëf ju dëppoog lam fas looloo waral lamp moo waral maanaam lumière ba fay kon moom boo bëggee sa leer gi nekk fi dee ko del jël matt di ca def bu matt ma manqué rek leer ga fay kii tamit matam pas-pasam mi moo manqué ak matam jëf ji war a dëppoog pas-pas ba ndax mu nekk lu mën a wér looloo tax ni maanaam mbir ma yàqu moom la yàlla di wax si nii moo tax sama borom ne masaluhum seen me seen melo ñoom munaafiqiina si seen nifaax ga seen melo ka masali lazi dafa mel ni ki tukkikat bi nga xam ne dafa tukki ci ak lëndëm bu ko defee istawqada mu taxal naaran safara ci ak lëndëm falamma addaa at ba nga xamee ne leeral na moom safara wa maa xawlahoo la ko wër ba mu nekk ci sécurité foofa rek zahaba faagaagal laahu yàlla bi nuurihim ci seen leer ga wa tarakahum mu bàyyi leen fii xulumaatin ñi nekkalikoo laa yubsiruuna duñ gisati mukk la leen wër lu leen ko yóbboo summun ñoom de dañoo tëx ba mënuñoo dégg dëgg dégg ak nangu bukk mun woy muuma lañ ba mënuñoo nangu ba mënuñoo wax dëgg um yun way gumba lañ ba mënuñoo gis dëgg fahum ñoom daal laa yar ji wax na duñ dellutu mukk ci seen nifaax googa ci lii la ñu nekk ba dee kon gis nga yàlla nim ko misaalee leer na naññi mi ngi njëkk a wax boo koy jàngataat ka masal la si istawqada mu tëgg ko istafan la mais tëgg gi dafa boo ko jëlee ci maanaam mooy koy sàkkoo taal ba nga safara dem di wuti matt ba nga safara dem di wuti almet kon yaa ngi sàkkoo taxal mais boo amee almet am matt amutoo sàkkoo taxal da ngay taxal rek moo tax kon tëgg gi dafa gàcce da ngay wax rek aw xada mi ngi mel ni ku tukki woon ci ak lëndëm jàllar bi ko am jumtukaay yëpp ba tax mu taxal safara ba mu taxalee nag yàlla ne falammaa adaa'at maa la ba mu taxalee ba safara wi ñëw leeral ko la ko wër foofa rek dahaba laahu bi nuurihim ñu ne lan moo waral waxut dahaba laahu booba kat bi diyaahim lañ doon déglu ñu ne diyaa u moo gën a matale waaye leer moo gën a jagoo te yàlla ko xam balaaxa la ci waxin leer maanaam diyaa u mën nañ koo faagaagal mu dem leer ga des fa waaye leer buñ ko faagaagal rek diyaa u day demaale moo tax mu ne zahabalaahu bi nuurihim bu fekkoon dafa ne zahabalaahu bi diyaa'ihim kon di daw ubbe mooy dem mais nuuru ba dafa fay des waaye boo yoree torse boo xam ne lampe ba moo burle batterie yo vide foo jëlee tee leer moo leen dal dootoo mën a ti jeex na mu ñaareel bi tamit yàlla tamit waxun ne lu tax bam ne ah, maanaam falamma adaat ma hawlahu mu ne zahaba llaahu waxut bi niiraanihim mais bi nuurihim la wax lu tax kuy taxal safara safara taxut kuy taxal safara leer a tax waaye kenn taxalut safara ngir safara kon ngaa taxal safara bi ngir bëgg cee leerlu moo tax bi mu taxalee safara bi ngir leerlu rek yàlla yóbbu leer ga waaye waxut ne yàlla ne waxut ne ma yóbbu ma yóbbu safara wa kon yàlla waxam lu lu foor a la wa tarakahu mu bàyyi leen fi xulumaatin ñu dellu ci lëndëm gañ nekkoon xulumatu lañ nekkoon waaye léegi da koo jam oo far dañu delluwaat ci lëndëm ndax amoon lëndëm ba ci kanam nga ñàkk ko am leer ba ci kanam nga ñàkk leer go nekk ci lëndëm ñàkkoon ko faw moo ko gën moo tax mu def ko maanaam fi xulumaatin laa yubsiruna ci la ñuy nekk nag yàlla ne dañoo tëx dañoo gu dañoo dañoo euh, dañoo dañoo nekk ñu tëx ba mënuñoo dégg dëgg dégg ak nangu ñi nekk ñoo xam ne dañoo muuma ba mënuñoo wax dëgg gumba gumba goo xam ne gumba basiratu la te amal abu saar ji mu waxoon moo leen dal ba tax mënuñoo nangu dëgg yàlla nee na nag li ma wér ta leer kenn mënu leen a teqalikoog naafiq ndax jikko jikko la joo xam ne duñ duñ teqalikoog moom lool léeg leen nit ki am jikko joo xam ne loo ko bëgg-bëgg boo ko bëggee laayi biir sax def la noonu mënoo ca dara day deexaaleeg jikko ji rek yàlla ko ko mooñaale mënoo ca dara lii nag moo dal ñii tey misaal moomu leer na muy indiwaat nag beneen misaal mu gën a leerati mu ngi leen di misaal lan nag beneen ñaareelu misaal ba mbooloo mu doon tukki mbooloo mu doon tukki ba ci kanam rek taw fekk leen ci àll taw booba nag dafa ànd ak dënn taw su dënnee rek ñu jël seen poli baaraam yi dugal ko seen biir seen paxi nopp yi ndax dënn mën naa yóbbu sa sa dégg gi su melaxee rek ñu gëmmu seen bët ya waaye nag bu demee ba melax ci lañuy ñuy mën a dox tuuti mën a xam fi ñuy teg seen tànk yi ndax lëndëm geen tax bu demee ba melax gi ne kamaj fay rek ñi taxawaat loolu nag wax joo xam ne ju sew a sew la la yàlla misaale noo xam nga bu ne dañoo mel ni mbooloo mu tawte taw ba da koo niraleeg aaya alquran yi wàcc ndax taw bu bàyyee ko def ci suuf dafay dundal suuf gàncax sax gàncax naat nit ki mën koo jariñu jëmmam dund aaya alquran yi wàcc la niraleeg taw ndax aaya alquran yi tamit bu wàccee ci jëmm ji dafay dundal xolam dafay dundal rooxoom moo tax mu ne la aaya maanaam ak taw bi taw timit bu ñëwee euh, dana ànd ñett dana ànd lëndëm taw boo xam dafa ànd lëndëm lëndëm nga sax ko bañ ba jamoo ko dafa ne maanaam fiihi xulumaatun waaye mu ne taw ba timit wa raadun mu wa barqun mu mufratal ko jël maanaam lëndëm gi jamoo ko lu ko waral lii waral lëndëm ñett la kon faw ñu jamoo ko lii waral lëndëm dafa limu lëndëm dana ko dana waral lëndëm niir dana waral lëndëm guddi dana waral lëndëm taw moo tax mu ne maanaam fiihi waaye nag melax ak dënn li koy waral benn rek la moo tax moom mu mufratal ko jamawut ko li waral melax mooy niir lii waral dënn mooy niir amul ñaareel niir yi ci ko melax gi tamit maanaam dënn yi ci ci ci ci ci kii gi lay bàyyeekoo ci niir yi moo tax waxut maanaam ruxut mais mu ne raadu waxut maanaam buróog mu ne maanaam barku ñoom ñaar mu frotal leen mais lëndam gi nga xam ne ñettee moo koy waral su ko defee maanaam mu jamo ko ñu jël nag seen poli baaraam ya baaraam xajut ci bët bën bën nopp majaas la ñu jël seen poli baaraam ya nag bu dënnee rek ñu dugal ko ci seen bën bën nopp yi bu melaxee rek ñi gëmm seen bët ya ndax bëgguñ ko bëgguñ koo gis ndax day yóbbu seen bët ya yàlla nag loolu lay wax si nii bu paree ñu gën koo leeral moo tax mu ne melo ka sayibin dafa mel ni ki mbooloo mu tawte mina samaay taw boo xam ne mi ngi tukkee koo ci niir yi fii aji nekk la ca e, maanaam niir yooya walla nga ne fiihi aji nekk la ca taw boobu xulumaatun ay lëndëm yu rànkalikoo wa raadun ak dënn wa barqun ak melax looloo waral yajaaluuna da ngay def asaabiahum seen poli baaraam ya fii asaanihim seen biir bën bëni nopp ya maanaam ah, mina sawaax ngir tatak dënd ya ragal dee waaye wallaahu yàlla muxiitun aji xalak la bil kaafiriina ci xéeféer yi yàlla mën na leen xalak na leen ndax lii alkande gu rëy rëy la kon nire leen ak mbooloo mu doon tukki ba ca kanam taw dab leen taw ba booleek ay dënn taw ba booleek ay melax waaye dënn ya namut ca dënn taw ba namut ca taw dënn ya namut ca dënn melax yi namut ca melax taw ba mi ngi ci namu aayay alquran yiy wàcc nire leeg taw day dundal roox dënn ya lam ca namm mooy aayay alquran yi ñëw di leen bàyyi leen seen ni seen nifaax gi ngeen nekk yéen a bon yéen a yées ak aayaat yi nga xam ne bu ñëwee duñ ko mën a dégg ci ci noona naka noonu melax ga man ca namu aaya yooyu ñëw di leen di leen di leen weer ndax boo nekkee ku taw te nekk ci àll bi foo mën a nekk bu bu yàlla ji ne rey melax gi rek dañ la séen ci biir lëndëm gi ngay wago su jéggi taataaya lu la lu la lu la weer melax ga kon melax yi tamit ah, melax yi muy aay yi ñu di leen leeral la dem ba leeral leen ba gars yi buñ toogee yonantu bi sax dañ mën a dem ba ne kii ci la bokk kii ci la bokk ndax aaya day ñëw dëppoog seen comportement léegi melax waaye aaya yooyu di tëkku nag boo gisee mu ne genlonu asaabiahum aaya yooyu ñëw di leen tëkku duñ ko nangoo dégg mi ngi mel ni koo xam ne dafa nekk ci tukki wala mu nekk sax këram bu déggee dënd na muy jëlee ay baaraam baaraamam di ba nga déglu dënd ya moo tax bu déggee aaya tëkku rek duñ ko nangoo déglu ndax yaakaar nañu buñ ko dégloo léegi tey ñu dugg ci diina ji naka noonu aayaay melax ya tamit bu ñëwee duñ ko nangoo xool ndax buñ ko doon xool di settantal di xool seen ayib ya léegi tey ñu dugg ci diina ji waaye yooye bëgguñ ci dara yàlla ne nag man faagaagal naa leen baatab ixaatatu li gën a bëri bu ñëwee ci alquran rek xal alkane lay firi boobu muxiitun mi bàyyi ko ci axaata yu xiitu xam nga jàng ne wa uxiita bi samarihi ah, dégg nga jàng fële tamit ca surtout illa an yuxaata bihim foofa yëpp maanaam alkane lay firi moo tax ñu ne wallaahu yàlla muhitun aji faagaagal la bil kaafirin ci xéeféer yi mi ngi mottali léeb wa mi ngi mottali léeb waa melax ga ak dënn ya mu ne yàkkaadu xaw na albarqu melax gi yaxtafu di fëkk absaaruhum seen gis ya waaye kullama adda saa yoo xam ne leeralal na lahum ñeexal leen masaw ñu dox masaw leer googa wa ida aslama bu lëndëmalee alayhim waral leen xaamoo ñu taxaw yàlla ne walaw saa bu sooboon laahu yàlla la zahaba mu faagaagal bi sam'i ci seen dégg yooya ñi ba a dégloo aaya yàlla yi leen i tëkku comme ni mu faagaagalee seen dégg ci ci baatin mu mu faagaagalee ko ci saahir wa absaarihim bu ko neexoon mu faagaagal seen gis ya ci baatin comme ni mu ko faagaagalee ci saahir wala mu faagaagal ko ci saahir comme ni mu ko faagaagalee ci baatin lu tax ñu ne ko mu ne inna laaha naka yàlla qadirun aji xattan la yàlla ni muy daanee aayaam yi rek moo lay daane inna laa ala kulli shay'in qadir mooy tekki ne mën na lii lépp aayaay tëkku yi may wàccee ñi ban koo déglu su ma neexoon ma sakk seen nopp yi ñu far tax dootuñ déggati ma ma tëxal leen ci saahir comme ni ma leen tëxalee ci baatin ndax tax nañ ci baatin mënuñoo ñoo dégg ak nangu aaya yii ñëw di leeral ñi bañ koo gis su ma neexoon ma fëkk seen bët ya euh, maanaam duñ gisati dara comme ni ma leen ko defee ci baatin ndax mënatuñoo gis dëgg ma man koo nangu gis ak settantal nag ñu ne lu tax loolu te loolu ma wax loolu bokk na ca kon dafa bëgg a wax ne bu aaya ya wàccee wax lu leen arrangé rek ñi dox ànd ceeg yonantu bi bu aaya ñëwee ne màng màng da ngeen ko séddoo wa'lamu maa ghanimtum min shay fa anillaahi xumusahu la ca des nag yéen ñi xeexi woon ñu ñu kontaan bu aaya ñëwee ne ku tudd baatab seede bi bu kenn xeex ak moom ah, bu leen ñaanee soxna may leen ko su ngeen soxlaa doomam dem leen ngeen takk ko yu mel noona ñi nangu duñ ci am ak yonent bi benn problème waaye aaya yoo bu ñëwee di leen tëkku aaya yoo xam ne day ñëw wax seen i seen i mbon mbon yaak dem leen ci mu xatt leen rek ñi taxaw wa ida doo ila allahi wa rasul liyahkuma baynahum ida fariqu minhum muriduna waaye wa in yakun lahumul xaqu yaatu ilay muxinina yàlla nee na bu fekkee am nañ xaq ci loo xam ne lu ñu war a kaañu la rek ñi xommatu dem jëli loola waaye boo xamee ne deneen rek loolu mooy melaw naafiq piir moo fi nekk tey ci suñ société bi koo xam ne bu neexee rek mu ànd ak yow dana la tagg ba taggal la say maam waaye bu naqaree rek mu rocceeko kas kas la ne ñaw xamoon nan loolu mënu koo ñàkk dal loolu tey moo tepp mu mel ni aaya tey suñ biir ndakaaru gi wàcc lépp tey moo yàq entreprise yi moo yàq société yi moo yàq daayira yi moo yàq parti boo ca dem tas nañ nekk bu ca nekkoon benn parti soppeeku na ñeen fukki parti yëpp tey jaxase rek ak toxal ay wax moo koy waral yóbbu loolu ba lépp yàqu tey kon yàlla ngoog ca munaafiquna yi su ma waxee nag waxu naa la mu nifaaq ci ci ci ci ci kéeféer ak nifaaq ci jullit seen séparation waaye aaya buñ ko waxee rek mu wàcc ci ab xéeféer yàlla di ko xas ci aw melokaan wu bon rek jullit bu nekk loolu moom waaye bul wane ne ñoo ñoo ko moomoon rek ñun jullit ñi moomuñu ko suñu woon nekku ci déedéet bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab dégg nga kon la ca tegu muy aaya bi mu commencé téere beeg léegi ñetti kuréel la tudd tudd na jullit ñi muy kuréel bu njëkk bi gën ñeenti aaya dugal leen aljana li ko dore ci hudan lil muttaqina ba ci ulaayikul muflihuna jullit ñaa ko moom dem nañ aljana mu jël ñaareeli kuréel bi dugal leen safara inna lisna kafaru sawaun alayhimu ba ba muy jeexee ci ñaari aaya mu dugal leen safara mu jël ñetteeli kuréel bi di munaafiqiina yi ci fukki aaya ak ñett ba tey nii dugal na leen safara seen mbir jeex yàlla boole waat ñetti kuréel yëpp nag digal leen benn digal ne yéen jullit ñi maa ngi leen di digal ngeen sax ci wéetal yàlla su ngeen bañee yàqule yéen xéeféer yi su ngeen bëggee baaxle bàyyi leen seen bokkaale gi ñëw wéetal yàlla yéen munaafiqiina yi saxal gëm yàlla ci seen làmmiñ weddi ko ci seen xol na ngeen fexe saxal ko ci ñaar yi moo tax mu ne yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum ñett ñëpp a ko bokk aaya ji màkkal màkka màkka waa bu ne naasu nag ñaareel donte Madina la wàcce li gën a bëri Màkka lay wax ak waaye mi ngi wax ak ñetti kuréel yëpp la bëgg a wax moo tax mu ne yaa ayyuhan naasu xée yéen xéeféeri Màkka yi ubudu na ngeen wéetal rabbakum borom seen allazi borom ba nga xam ne xalaqakum moo leen sosoon te nekku leen woon dara na moo sos ña nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen laallakum mbastale yéen tattaqu na ngeen ci mbugalam laallakum hóor na naññ ne su ngeen ko wéetalee maanaam tattaquuna da ngeen da ngeen da maanaam da ngeen teetee jaamu ko ci mbugalam da ngeen teetee ko ci mbugalam kuy yàlla mu ne alazi mooy buur ba nga xam ne jaala def na lakum ñeexal leen al arda suuf firaasan mbir mu muy nekk di lal bu la neexee taxaw bu la neexee toog bu la neexee tëdd wa samaa moo def asamaan binaa an muy téeg wa ansala moo wàccee mina samaa yi ci niir yi maa an taw fa axraja mu génnee bihi ci taw boobu mina samaraati ci xeeti gàncante xan muy wërsëg lakum ñaal leen kon nag falaa tajaaloo bu leen def lillaahi ñaal yàlla andaadan ay ndend wa antum te mbir moomu yéen tax la mun a xam ngeen ne yàlla moom mooy ki bind ndend yooyu mënu ñoo bind tus kon dem leen ngeen wéetal yàlla kon yàlla nee na yéen jullit ñi sax leen ci wéetal ma bu ngeen bañ a yàqule yéen xéeféer bàyyi leen seen bokkaale gi ñëw wéetal ma yéen munaafiqiina yi bàyyi leen seen li ngeen di feeñal taf bokkut ak li ngeen nëbbu ngeen ñëw wéetal ma ndax damaa def dama leen damaa def ñaar ba pare defaral leen bu ñu defaroon te defaralul ñu ñu mën a wax bu ñu defaraloon te defarul ñu ñi mën a wax waaye ñaar la ñu defal lim njëkk mooy dañoo njëkk a defar ba pare door ñoo defaral defar gi mooy maanaam euh, yàlla moo mu ne allazi xalaqakum wallazina min qablikum maa leen defar créé leen te xooluma leen fenn maa jékki-jékki rek créé leen xooluma leen fenn maa créé woon ña leen jiitu woon ci aadama ba ci yéen ñi kon nag su ngeen nekkee ci wéetal ma rek jaamu googa xamul sikk na dañ leen dimbale ba ngeen mukki ci mbugalam àllaaxira ëllëg laallakum tattaquuna gannaaw bi ma leen defaree ba pare dama leen a defaral defaral gi mooy allazi jaal lakumul arda maa leen defaral suuf mu yaatu loo fi yàgg-yàgg dula sappi sàppi bu la neexee daw bu la neexee toog bu la neexee tëdd bu neexee jaaxaan bu la neexee sukkandiku dara foo nekk lu mu neex neex boo fa defee deux heures de temps rek mu naqari ya duggkati avion yi xam nañ ci dara loo bëgg-bëgg avion wallaay boo ci defee ñaari waxtu wàcc rek ngay bëgg boo duggee ci bato bi ñaari waxtu ñett wàcc rek ngay bëgg boo duggee ci oto bi maa ngi jëm Kawlax bala ngaa yegg wàcc rek ngay bëgg waaye suuf nag mooy koo xam ne ku ko war doo ko bëgg a wàcc kuñ la tàggee ne wàcc na ko sax nga ne yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ak loo fi yàgg-yàgg nag te doo yëgati ne ku yàgg mën ta yàggati waaye sa yoon nekku ci boo xasee yàgg mënoo yàggati waaye ku dee ra nga ne yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu kon maa leen defal jaal maanaam allazi jaal lakumul arda firaasan mu bu la neexee tëdd bu la neexee toog yëngatuwut ba ngeen ni am ay problème mais suuf dafa dal rek te suuf ànd loolu lu lu leen neex ngeen sëf ko yéen a ko sëf seen bâtiment yi dëkkee ko yéen a ngi ko sëf seen oto yi war ci kawam yéen a ngi ko sëf maanaam seen bagage yi nekk ca nekk ca biiram te moom mosul woon ko ma ngi ca nekk rek wa ba tey ma defaral leen wa samaa binaan ma jël asamaan si def ko muy ab téeg tiim leen yéen ñëpp bu fekkoon ne asamaan si tey nim ñu tiimee doole jim am dafa daanu suñ kaw ñi torox waaye yàlla téel ñu ko rek ànd ak loolu boo loo ko gis benn fissure lépp a baax lépp rafet maa tara fi xalqi rahmaani min tafawuti farji il basara hal tara min futur doo fa gis dara yàlla moomu tamit yow ma ci ci asamaan si waaye niiri la ci nam ma génnee leen ci ndox ndox mooma tooy xepp ci suuf si suuf soo sa ñëw génne leen ay gàncax yu wuutee kenn ku ci nekk ba nga bëgg rek boo boolee bëgg yëpp tamit mu nekk di la jariñ yi gàncax ñëw saf suukar yi forox yi saf kaani yëpp mën ta ñàkk benn bu ci nekk maa leen ko defal te menn ndox laa ko arrosé waaye loolu liñ ciy mën a déggee ki mën a jël fekk jël ndox dugal ko ca wàccee ko ca mu tooy xepp sax gàncax waaye kooka bu la boo deexee mën naa laa dekkil nga war koo mën a gëm loolu rek lañ ci mën a déggee fa axraja bi fa axraja bi mina samarati risqan lakum kon waay waay bu leen wutalal ci yàlla ndend ku ngeen koy mën a wutal naan di ko jaamu mënta bind tus weñ sax mënu koo bind kon nag su boobaa dem leen jaamu ji yàlla mi nga xam ne mooy ki bind ki bind di wërsëgal di ray di dekkil di fay rek moo xeeyoo jaamu keneen ku dul loola boo da ngay perte kon loolu la bëgg a wax mooy aaya dafay wax ak waa Makka yi di wax ak àdduna bi yëpp tamit dëkk ci alquran ndax bi yàlla wàccee alquran ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ko juróom-benn fukki hisib téeméeri saar ak fukk ak ñeent xéeféer yi dañoo commencé di wax naan ah in hadha illa qawlul bashar lii waxi mbindeef rek la yàlla ne da ngeen a seen bopp nag su fekkee waxi mbindeef la yonent bi mbindeef la di arab andil leen ma benn saar xam nga benn saar la wax fii waaye saar woo xam ne dafay bàyyee ko ci ku mel ni ki indi saar wi ku mel ni mooy faatu bi suuratin min mislihi ku mel ni ki indi saar wi mooy yonantu bi ummi yu la manta bind mënta jàng boo bindee jox ko du mën a liir seet leen ci seen biir ngeen tànn benn ummi yu indil ma ko bu mën a indi saar wi mel ni moom moo tax mu wax fii ne min mislihi jóge loolu la ci namu am na foo xam day wax ne faatu bi suuratin mislihi foofa nag moom dafa dëkk mbooleem bulakaaw yi ak fusahaaw yi yéen ñi am balaaxa am fasaaxa yéen ñëpp ànd leen ngeen fexe ba indi benn saar bu mel ni alquran mënuñu ko fekk nag njëkk loola dafa leen njëkk dëkk ci fukki saar waxee bi asri suwarin mislihi muftarayaat mu wax leen loola mënuñu dara yàlla ne waxatuma fukki saar wàññil naa leen juróom-ñeent yi indil leen ma benn rek benn booba nag ñaari dëkkee ci am benn ba indil leen ma saar wu mel ni alquran ci balaaxa ci usloob ci solo lu fàddu lu ñëwagut ci wax ju am ren ju am ju dijji di ju maanaam ju meññ ji ju sakkan ji andi leen ko beneen dëkk bi ci baqara nag mooy andil leen wa wenn saar woo xam ne ki koy andi dafay mel ni ki andi saar wi comme da ab ummi yu ñetti yooyu mënuñ ca dara ab ummi yu ci ñoom ba mën a andi saar xamut ku dul ummi yu ci ñoom ñëpp buñ dagalee mënuñu andi saar kon nag li ci teg kon nag mooy qul in ijtamaatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hada alquran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahiran bu ngeen doon sotlante yéen nit ak jinni tamit di jokkalante seen i wax mënu leen a andi dara lu mel ni alquran moom lay wax si nii tax mu ne wa in kuntum su fekkee da ngeen a nekk fii raybin ci sikk mimma na wàccee nañ ko ala abdinaa ci suñ jaam bi di sayduna muhammad kon nag faatoo andi leen bi ci saar min mislihi mu tukkee koo ci ku mel ni yonantu bi nekk ab ummiyu min mislihi mu mel ni alquran fu ko defee tamit def leen loola maa leen ko wax andi leen ko waxuma yéen rek waaye waddoo na ngeen woo suhadaakum seen xiram yi min doonillaahi ñu dul yàlla ñi ngeen wax ne yàlla lañ te duhun yàlla xoolee leen ñu dimbali leen ci waddoo na ngeen woo suhadaakum seen yàlla yi min doonillaahi in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggu ci ne yonantu bi moo créé alquran andi leen ko kon yàlla ne fa in lam tafaaloo su fekkee defu leen ko ci li teew nii walan tafaaloo te du ngeen ko def mukk ci lii ñëw ba bay àdduna bi tukki kon nag fattaqu na ngeen teetee gëm naara ci safara lati safara si nga xam ne waquuduha matamma annaasu mooy xéeféer ñi wal xijaaratu ak doj ya ñuy jaamu uidat xadoof na ko lil kaafiriin ñeel xéeféer yi yàlla kenn du moom comme nag mënu leen ko ci li teew te du ko man ci liy ñëw waaye waay kon nangu ko bala ngeen a tàbbi safara wi nga xam ne mattam ma mooy yéen ñi di xéeféer yi mattam ma mooy timit xiréem ya ngeen xettoon di ko jaamu antum wa ma taabuduna min dunillahi xasabu jahannama antum laha waaridun am na aaya ju mel noonu ju wax loolu kon nag eh, lu mel noonu kon na ngeen ko daw balaa loolaa ñëw kon lii bokk na ci ijaasul Qur'an xoolal lii tey ah màkk ni ñu fasaaxee yi niñ mënee wax ak nit ñi niñ mënee xewil niñ mënee xewil wax wax joo fi wax balaa mat ñeenti at juróom indi jeneen wax te ba léegi mënuñoo fexe ba xewil alquran loolu yéeme na nit ñi niñ mënee toppandoor luñ dégg ñaareel man koo toppandoor moo tax piraag yi bëri sax ba gars yi di ko interdit loo def lañu piraag ko waaye gars yi li ñuy for for mënuñoo piraag alquran kon loolu jar jar naa laaj lan la kenn mënu koo piraag benn waaju texe a di ñàkk solo di Musaylamatul kazaab moo ko doon jéem a piraat te xam nga yàlla bu ne def leen yow mënoo def nga ñàkk a def dese kumpa moo gën ngay def def goo xam ne day feeñal sa tële moo gën yàlla ne waaw andil leen ma fukki saar mu ne ah fukk de moom mënuma ko waaye dinaa toppandoor benn saar ne day toppandoor maanaam wan naasiaati ne yàlla lu wax ñu ne dafa ne wan naasiaati garqan wan naasitaati nashtan mu ne ay kon kay dama koy toppandoor man maa ne wassaariaati saraan wal xaasidaati xasdan wa taaxinaati taxnan xam nga loolu du waxi dara maa ngi gëñ ne mbay mi mbay la maa ngi gëñ ne ngóob mi góob la maa ngi gëñ ne bojj mi nit ñi bojji bojj la kooku du waxi dara xam nga yooyu wax yooyu sax boo ko waxee sa doom yi lay njëkk ree moo tax wala maaw balaaka di ko ree fi lafdiha wal maana ka qawlihi wa taaxinaati taxna wax ju amul solo la amul bopp amul genn parce que li tax alquran naqaree toppandoor boo ko doon toppandoor da war a wax ne yow ci looy toppandoor luñ mën a toppandoor day fekk mu nekk genn fànn alquran bu doon téeréeb genn fànn faw ni ñi mën ci dara loo yore téere bi nga ne téeréeb luxa kon dana ci am ñu ci man dara ndax ni ñaa ngi taalif ci luxa bu doon téeréeb siira faw gaa yi def ko am nañu bind ci siira lu yéeme bu doon téeréeb timit naxu faw gaa def ko am nañu waaye alquran den kenn dafa xamul téeréeb lan la moom daal téeréeb lépp la naxu la moom balaaxa la moom moom maanaam ma usul la fiq la médecine la moom daal téeréb lépp la lépp na ko ko mën a toppatoo munoo koo wax moo tax amul kenn ku mën a téere téere bi nga yoroon lan alquran nga ne mooy lan nga ne munoo koo wax munoo wax lan la lépp la kon lépp la waaye bu doon téeréb lenn rek far force am ñu ko toppadoor kenn mënu ci dara kon nag yàlla wax na ak ñoom foofa ba léegi nag ñëpp tiit nañ tudd na safara ba ñëpp jàq waate la bu ne safara safara ba ñëpp tiit nag dafay waxaat aljaana aljaana ba ñëpp békk kon ñiy waare ñëpp war nañoo jàngee waaraate ci yàlla waaye boo fi nekkee tamit nag foo toll safara ñaari baat ñett safara nga jëm mel ni yow da nga cee mucc yow mi koy wax gars yi toxal seen ondu ya waaye boo ne fi aljaana aljaana aljaana tamit bu yàggee gars yi dañuy naagu nekk ci li leen neex waaye léegi-léegi da ngay boole diggante al war a jaa gars yi ragal ragal ba yaakaar ne bu ñuy dem kenn kooka ñun lay doon léeg-léeg nga yaakaar yaakaar ba foo ne kenn kooka buy dem tamit ñun lay doon boo boolehul ñaar yi rekk du baax moom lay wax si ni aljaana ndax ndax ñi ma woon naa tàng yàlla ne wa bashiri na nga bégal yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazina nga xam ne amanoo dëggal nañ wa amiloo ñiy jëf saalihaati farataa ci naafila yi leen bégal ne anna lahum aji nekk la ñeexal leen janaatun ay tool tajiri yooyu dana daw min taxtihaa ci ron ya al anhaaru sewnda yay ñeent kullama rusiqoo saa yoo xam ne wërsëg gëleef na leen min ha ca aljana yooya min samaratin ci meññant risqan mu di wërsëg xaaloo ñu ne haza lii ni la nga xam ne rusiq naa wërsëg gëleef nañu ko min qablu ci njëkk ñuy dugg aljana ak ñoo niroo yàlla ne wa uutoo joxeef na leen bihi ci wërsëg woowu mutashabihan mbir muy aji niroo ci melo ta huutee ci caf nga wala hum aji nekk la ñeexal leen fiha ci aljana aswaajun ay soxna mutahharatun yadi yuñ laabal ci reegal laabal leen ci taflit ak ñandaxit ak dem wanag raabal leen laabal leen tamit ci jikko yu ñaaw foofa amul génn jigéen guy tàccu jëkkëram waxum ñoom xaal duna way bel lañ fiyaa ci aljana kon aljana ngoog yàlla nee na yonentu bi bégalal sa bégalal bi ma la may ci aljana ñooña mooy ñi gëm yàlla piir tudd ko seen làmmeñ fas ko seen xol di ko jëfee ci seen cër moo tax amono fu ko alquran waxee rek waa amilu salaati moo cay tegu waaye maa gëm yàlla tu du ma jëfee li yàlla indi kon gëmoo dara lay tekki kon meññant la moo xam ne lii koy feeñal su ko defee nag yàlla ne ñooña comme gëm nañ te ña jëf-jëf ju baax xamal leen ne leen boo ëllëgee aljaana la ñuy dugg aljaana yoo xam ne ñii ne eh, ñeent lañ am ñu ne juróom-ñett lañ su ko defee nag aljaana yooya firdawsi ca la bokk yonent bi nee na moo ca dàq kuy ñaanati yàlla na ko ñaan yàlla firdawsi su ko daaru salaam janaatu addinin tur yu bëri la waaye daal alhamdulilah fuñ dugg baax na nañ dem aljaana rek moom daal nañ dem aljaana rek aljaana mi tekki xay jeex na fu ñu ca dugg baax na yàlla nee na ku ma dugal aljaana teral naa la waaye ku ma dugal safara toroxal naa la sama toroxal ci nit daal feeg xéggagul ma dugal ko safara rek toroxtaane ga des na waaye su ma ko dugalee safara deseetuma ko euh, su ko defee nag mu ne bu ñu fa duggee nag dañuy servi ay ñam sarwi ñu tabaraka tabaarakallaahu ay fur wi boo gisee muy wax fur wi toujours ci alkuraan arab yi dañoo bëgg fur wi trop moo leen gënal ci xeeti lekk yépp yàlla nee na nag buñ leen joxee fur wi dañuy saalik buñ ko xoolee rek bala ñoo ñam dañuy wax ne ah fur wi bii kay pomme la amoon nañ ko ci àdduna bii orange la bi mandiri la waaye buñ mosee rek ne couleur yi ñoo niroo waaye caf nga yi duñ benn xaaju xaaju ñoo niroo ñëpp saalik nga xam ne kon duñ benn nekk yàlla du ma ci xem dinaa leen fa may ay soxna alquran moom da koo nakiraar rek wala hum fiha azwajun mutahara ah, ñenn ña nag ña ngay lim ne da nga xam lu man ñeenti junne ci ñu ñu tuddee jànq am ñeenti junne ci ay jeeg ñenn ña ne da xam lu ma téeméeri junne ci xuuru xay nii mais xalaa kulli xaal daal alquran moom da koo da koo nakiraar rek ne daal da ngeen am soxna yoo xam ne yu bëree bari leen yemul ca bam ko nakiraale mu manuutal ko def fi ne mutaharatun ñoo ngi duñ am duñ def dara mu ne sax tamit du ñuy ñaaw jikko ci fi koo xam ne jikkoom dafa ñaaw da ngaa xamul noo koy def rek ñetti baat ñeent mu tàccu la wax la wax ju bon xas la te mënoo ca dara yaa ngi koy seetee njaboot gi ngeen am wala léeg-léeg yaa ngi koy seetee sa goro ya nga nga nga bàyyi ko ci kër gi rek foofa nag moom jigéen joo xam ne dafa ñaaw jikko amut fa ndax bala ñoo dugg ñëpp la ñu opéré ñëpp rafet jikko bëgg bëggante sax nasaxnaa maa fi sudurihim min xillin ixwaanan ko defee foofa moo moo tax kon mu ne walahum fi azwaajun mutahhara kon nag ña koy jéem a lim daal xam naa soxna ya bari nañ waaye alquran daal moom da koo nakkiiraal moom limut ko gu ci mooy inna allaha la yastahi bu ko yàlla waxee day delloo ñaar dafay delloo musrikuuna ya doon wax ne buur bu day ni yàlla ñuy wax ne ku màgg la gën a màgg lu dul moom lu muy tuddee mbir yu xeebu yu mel ni ankabóot ji tekki jargoñ ak lu muy tuddee weñ banaan wa in yaslubhumu zubaabu shay'an weñ ni mu xeeboo lu ci yàllay tudd ak lu muy tudd naan kamasalil ankabooti taxasal baytan cay tudd yàlla tontu la ne inna laa laa yastahi an yadriba masalan beneen bi day tontu munaafiqiina yi munaafiqiina yi ba leen yàlla melalee ci ñaari melokaan yi njëkk a jàng muy masalahum ka masali staqada naaran ak beneen bi aw ka sayyibin mina samaa'i ñu ne lii daal yonantoo ko wax waaye du waxu yàlla yàlla mag mu day ni moom du fi nekk di léeb waaye léeb bi too ñu ko wax rek waaye du ñun yàlla waxut ko yàlla nag tontu leen ñoom ñaar ci benn aaya ne yàlla yera sut di léeb ci loo xamee ne nii lu weñ la wala mu xeebu ba mel ni yoo bari na luy xeebu nga jàpp ne lu xeebu la ki gis-gis te fekk màggaayam ken xamul ni mu toll moo tax mun ina laa laay sa adri masalan yoo moomu ñuy xeeb xoolal yoo boo al mawsuwaatu dahabiya fii ijaasil qur'an wa sunnatu nabawiya bu lay bu lay bu wax ci yoo da nga yéemu mu ne yoo moom kenn li muy tuuti tuuti lépp lu ñay di am yoo am na ko te yoo am na lu ñay amut yoo am na tànk am mbagg juróom-benni tànk la yoo am te xam nga ñay nag ñeenti tànk la am te bindab ñay la amee ñoo niroo ba mu am juróom-benn tànk ñay am ñeent yoo am ñaari mbagg ñay amul mbagg ñay am maanaam ñay am bakkanam bu gudd boobu di xurtuum bi yoo tamit am na ko ñay am na benn geen bu nekke ca gannaawam yoo am na ko waaye yow moo ko xëppalee ñaari tànk ak ñaari mbagg te ñoo niroo melokaan ci bindin mu ne tamit yow moomu jël di ko xeeb kiñ jàpp ne mooy ki gën a rëy nekk am ponkal yoo mën naa ñëw rek rof ko pikk bi rek léegi léegi léegi mu feebar ba mel nekkatul moom léegi-léeg nga gis mbër mu mu entraîné ba jàpp bañ jàppal ko combat muy toog di xaar yoo ñëw fekk ko fa rek pikiir ko feebar ba ñëw dugg ko mënatul dara dara bañ mujj fomp ko fomp combat ba kooka ka yoo yoo na ko kon yoo moomu li muy tuuti tuuti mën naa ñëw pikiiram bi mu rof ko gaynde mu dee mën naa rey gaynde yoo mën naa rey ñay rey nit ko gën a rëyu Namruus mi ñuy wax ko ko rey yoo ko rey ak rëyu rëyu gi mu doon rëyu yëpp yoo rek ko rey kon yoo jar na xeeb yoo moomu tamit li muy joxe ci feebar kenn mënu laa wax ni mu ni mu jox am na beneen feebar bu ñu tuddee maanaam ci téere bi mu ne malaria boobu mu ne benn yoo bu ñu tuddee onofilis moo koy joxe te loolu li mën a rey ci ay nit kenn xamu ko beneen biñ gën a xam mooy siburu mu ne boobu yooyu ndaw yi ñoo koy joxe siburu boobu tamit mu ne boo demoon benn réew bu ñu tuddee usobia at rek mille neuf cent li maanaam mille neuf cent soixante ba mille neuf cent soixante deux diggante ñaari at yooyu yoo ray na fa fanweeri junne nit kon yoo yoo jarta xeeb yoo jarta xeeb kon lu rëy rëy rëy la te yoo moomu tamit li médecin yi def ñu lay opéré moom la yoo am médecin yi bañ la banañ laa opéré xotti sa biir bi dafa am lu ñu lay njëkk defal ba foofa dee dañu rey sa sa der bi ba pare nga xam ne bu ñuy xotti foofa kenn du ko yëg waaye opéré ni métier bu loolu amutoon musiba yoo tamit loolu la am bala laa matt place bi ba pare door laa matt su ko defee nag bu dangar ji demee bu la matee pare doos booba jeex nag ngay door door moo tax dangay ngay rek fekk doo dajade dem na bu yàgg loolu loolu la yàlla defar yoo boo fay tàpp yow ab doos rek ngay tàpp mais yoo nekkatu fa kon xam nga ne kon yoo xereñe na ka noonu tamit yoo fit bi ko yàlla jox borom xam-xam ne ne bu ko joxoon gaynde ñun ñëpp dee a ah yow da ngay toog nekk borom kër sa njaboot ji wër la yoo wi ñëw dal ci sa bakkan bi nga nekk président garde corps yi wër la yore seen fetal yi yoo ñëw dal ci sa bakkan bu ko gaynde yi ñemee woon ak ñeneen ñi ñi fi ñëpp dee kon ni mu amee yëg-yëg ak ni mu amee yëg-yëg yoo bu la dalal tey boo yëngatu ba ne yaa ngay kii rek fekk naaw na dafa am yëg-yëg yëg-yëg bi nekk ci moom parce nekkul ci beneen it ba nekken nekkul ci beneen rab ñaar juróomeel bi yoo dafa am itte yitte rek moo tax muy naaw am na tànk bu ko neexee dox ca am na ay mbagg bu ko neexee naaw ca te naawaayam bi lu gaaw la borom xam-xam yi ne nañ benn waxtu bu nekk yoo mi ngi ciy naaw ñetti kilomètre ñetti waxtu bu nekk waxtu bu nekk rek mi ngi def ñetti kilomètre ci naaw waaye su boobaa nag juróom-benni mbaggam yëpp lay utiliser su boobaa juróom-benni mbaggam yëpp dana ko yëngal juróomi téeméeri yoon pour mën a hegg foofa kon nga xam ne yàlla bindul lu xeebu ñoo dul xam rek mais yàlla lu mu bind rek loola lu màgg la waaye nag nit ki mu dul xam kon gis nga yow mii ngay xeeb moo ëpp ganaar hitte ganaar ñàkk hitte rek moo ko teree naaw moo tax hitte lu baax la boo fi yoree xam-xam yor fi lu nekk taxamoo hitte doo jariñ sa bopp doo jariñ kenn waaye hitte rek lu xam solo la Cheikh na Tidiane wax na ko hiba xaahiratul akwaan lu xam solo la waaye ganaar moom mi nii mook cokeer cokeer ëppul ko dunku te wax dëgg yàlla cokeer ëppul ko poids tana ko ëpp poids te mi ngi naaw waaye ñàkk hitte tax moom fu mu toll mi ngi taxaw rek di dox rek du dem fenn kon yo ko am hitte la te hitte baax na dorop ci doomu aadama kon yo lii lépp yàlla def na ko ci yoo nag ay xeet la ni doom aadama yi nekkee ay xeet ay raas yu wuutee ni la yoo yi nekkee ay raas boo demee ci monde bi yo xe yoo wu ne ak xeetam waa moromam ma duñ benn waaye yoo nag rek mooy yoowu jigéen yoowu góor moom du lor kenn yoo yi nga xamante ni ñooy nekk ci biir kër yi foo leen fekk rek yooyu yoowu yoowu jigéen la moo tax alquran ba muy tudd fi yowu jigéen la tudd tudd yoowu góor yoowu góor amul problème ñu ne moom bisu mariage bi rek lay génn bu dul loolu rek bu génn bis boobu rek bu dul yooyu kenn du gis yoowu góor kon yoo li ci yàlla dëxëñ boo demee ngi seen xam-xam màcc ci yoo la wala nga dem ci teer bu ñu tuddee xayaatul xayawaan dana la ci wax lu xóot a xóot ci wàllu yoo kon yàlla tuddul lu xeebu yow yaa dul xam rek waaye Euh, foofu nag yoowu jigéen moo ëpp doole yoowu góor moo ko ëpp kartan moom tamit mooy manq mooy manqee deret feneen ñëw sol la ko feebar bu dal nit rek mu jëlee ko ci yoo rek yoowoo yoowu jigéen la waaye duhut yoo yoowu góor woo gis tamit ba tax ngay takk sànke rek euh, muy ñëw ñëw takk foofa di dee wala ngay jël di pompe yoowu jigéen la mais yoowu góor mënoo koo gis ba koy def loola kon yàlla ku xerañe la lu mu tudd lu xam solo la moom lay wax si nii ci ci yoowoowu muy lépp nga xam ne bàyyiwul benn détail moo tax mu ne yàlla laa yastaxyi du bàyyi ngir xeras an yadri ba muy sadd masalan léeb maa léeb wow baxudatan yoowu jigéen la fa maa fawqahaa wala lu ko kawe fa maa fawqahaa wala lu ko gën a xées loolu la kasaa yiw gëm fa amal la si na daal ña nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla fa yaalamun danañu xam ne annahoo naka moom léeb wow alxaq mooy dëgg ju sax min rabbihim gu bàyyi ko seen borom wa amal la daal ña nga xam ne kafaroo weddi nañ yàlla fa yaqulu ñoom dañuy wax ne maasa aralaahu yàlla bi haasaa ci lii masalan ci léeb yàlla ne yu dilu dana mu réeral bihi ci léeb wi kasiran yu bëri wa yahdi dana gindi bihi ci léeb wi kasiran ñu bëri waaye wa maa yu dilu du sànq wa maa yu dilu du réeral bihi ci léeb wi illal faasiq lu dul kàccoor yi rek ñoom ñoom la ci réeral ñoo ñaay ñan mu ne allazina mooy ña nga xam ne yanquduna danañu firi ahdallahi kul rek yàlla gi min baadi mithaaqi gannaaw feddali ga wa yaqatuna danañu dagg maa amara laahu la digle na yàlla bihi ci moom an yusala ba jokkeef ko te mooy ak bokk wa yufsiduna ci suuf ulaayka yooyu gaay melokaano melokaan yu bon yile hum ñoom dong alxaasiruna ñooma di way perte ña kon yàlla wax na ci lépp ci yoo ni mu mel bu ko neexee yàlla moom moom kulliyaat yi yàlla moom moom jusiyaat yi dara rëyut ci kanamam waaye dara tuutiwut ci moom tamit bu ko neexee mu lépp ci yoo tontu munaafiqiina yaag musrikiina yi walla mu wala mu wala mu lépp ci lu gën a tuuti yoo bu ko neexee mu lépp ci yoo bu ko neexee mu mu mu mu lépp baatab fawqu maanaam ildaat la mën naa firi maanaam lu gën a kawe mën naa firi lu gën a xiis mi ngi mel ni baatab waraa rek waraa mën naa firi gannaaw mën naa firi kanam yooyu yëpp kon noonu la tax moo tax ñi di ko firee ca yu gën a kawe ñi lu gën rëy ñi jàppee ko lu gën a tuuti waaye ñi xam gëm yàlla pire xam nañ ne lii waxi yàlla pire la amuñ ca commentaire gëm nañ ko gëm gu nañ ñi ña gëmut yàlla nag ña ngay nekk di ko jéem a ay détail moo tax ñoom nañ sànkoo ci léeb wi ba yàqule ña gëm yàlla nag dafa leen dollihat ak gëm su ko defee tamit ñi gën a baax le ñoo xam ne kóolu rek yàlla gi mu leen waxoon nga jokk yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam topp naam gëm ko te ñu waxoon leen ko ca téere ya yonantu yàlla Isa wax leen ko yaati min ba'di ismuhu ahmadu yonantu yàlla Musa wax leen ko ak yonantu yëpp ba ñëwee dañoo firi loola ngir bañ seen canga ga réer leen yàlla tamit digle na nañ jokk bokk ak noo ko mën a jokkee ñoom ba ñëwee dañuy dagg ak bokk te dagg bokk yàlla dagg la ku yàlla dagg doo am lay doo am leer su ko defee tamit loolu lay wax ñit sax fi rek di yàq suuf di ko gàllankoor ñooñu nag ñoo ñooy pe ñoo xam ne perte nañ ci àdduna perte ci àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal aaya ji tegu ci yàllaay xéemu nu ko nit di weddee ak fi mu jaar ak moom nit daal gëmam yàllaam duwut kéemaan weddeem yàlla mooy kéemaan moo tax mu ne kay fa takk furu na kaawteef naka ngeen di weddee xoola fi ma jaar ak yéen yàlla fan la mu ne nekkoon ngeen kenn ku ne ci yéen toqantal ma niyu mu ma dénk ci ay ay ndiggi góor ñu jël loola ma dénk ko ruxu mu jigéen ña ma jël ko fa def ko la ma fa def man yàlla neuf mois ci la gën a not wala six mois wala juróomi at mbaa ñeenti at ci li gën a bëri nga génnee fa jaar ci yoon woo xam ne yëg nga ne sa xajoo fa ndax alquran ne suma sabila yasarahu noonu la ko yàlla waxee su ko defee tamit nga ñëw ma lay màggal mënoo dara ngay dund di dem ba sa diir jeex nga dee nga dee war a dekki téye sa kar ne jëf ma war laa fay benn nga dem aljana mbaa safara fii yëpp ma war fee jaarak ak yow nga di ma weddi man daal loolu xéem na ma man yàlla kon fi yàlla jaar ak daal ba tax nit di ko weddi moom xéem na ko moom lay wax si nii naka ngeen di weddee billaahi ci yàlla wa kuntum nekkoon ngeen am waatan di ay toqantal maniyu ci seen ruxumu ci seen maanaam euh, ndigi waajur yi mu dénk ko ruxum ya fa ahyaakum yàlla dundal leen fa su ma yumiitukum topp mu ray leen ba seen diir jeexee su ma yuxyikum topp mu dekki lil leen gannaaw ba ngeen deexee ngeen dekk téye seen karneeb jëf ya su ma turjaxuna topp def na delloo leen yéen ñëpp pang leen illahi jëmee leen ca yàlla lii la leen yàlla def huwa moom la si mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na làkku maa fil ardi li nekk ci suuf jamian mbir muy mboole seen su mastawa topp mu jublu ila samaay jëm ci asamaan fa sawaahu na mu mu jël leen sab'a samawaatin yi juróom-ñaari asamaan huwa moom yàlla alimun xamaa kon la bi kulli seen ci lépp lëf de kon yàlla moomu moo jaar ak yéen fii ci bind jaar ak yéen fii ci dundal jaar ak yéen fii ci màggal jaar ak yéen fii ci wërsëgal jaar ak yéen fii ci ray jaar ak yéen fii ci dekki leen jaar ak yéen fii ci pay leen waaye gannaaw bam leen defee lii xoolal lim leen defal def nam ko waxee woon lépp gannaaw si ma bindal leen asamaan aaya ji nag moom ak aaya jam waxoon ne wal arda ba'da zalika daxaaha ta maanaam dàqwante wuñ defu ñu ta naqut fii boo déggee mu ne maa bind suuf lépp fa mel ni kon fa bind suuf lépp ba pare door a dem bind asamaan déedéet dafay lim xéewal yi rek dafa bëgg a wax ne defal naa leen xéewal ak suuf defal naa leen xéewal ak asamaan xam nga boo boo defee nit ki ay xéewal di ko ñaax soo may yëpp sa ñàkk jom la mayoon naa la fi ñaari junne jox naa la fi mbubb moo sol jëndal naa la fi oto ràññalewu ne bii moo jiitu bii wala bii moo jiitu bii waaye day lim xéewal yi rek mu ngi mel ni taskatu xibaar bi joxe xibaar waxtu une ci tele bi mbaa ci rajo yi dana wax rek li xew ci bis bi yëpp mais du nekkul fa di faram fànc ne bii njëkk a xew bii tegu ci bii tegu ci bii tegu ci mais l'essentiel daal lii xew na rek yàlla tamit loolu waaye nag ñëpp xam nañ ne asamaan la yàlla mu jë bind suuf la njëkk a bind ba pare mu nekk benn kuratu avant mu koy tàllal mu bind asamaan installé ko ba pare doora jël suuf nag tàllal ko ñu ne bu ko yàlla tàllaloon suuf ba pare door a bind ñàkk xel yi dañuy wax ne dafa taxaw ci kaw suuf door a bind asamaan yàlla wan ne man xaw ma fu may lu may dimbali ko moo tax mu ne wal arda ba'da zalika dahaha kon da dàquwante wuñ su ko defee nag mu bindal ñu jëfañu asamaan ulama wa usul ci aaya ji la ñu jugee ne xalaqa lakum maa fil ardi maanaam yàlla daganal na leen lépp lu nekk ci kaw suuf ñu ne mooy cosaanal cosaanal mbir yëpp moo doon dagan bu cosaan bu njëkk ba dara xaraamutoon moo taxoon nit ki mën a takk ko mbokk ak ndey ak baay xaraamutoon doomi aadama yëpp noonu lañ takkantee koo bokk mën a takkante booba xeeti lekk yi benn benn xaraamutoon mbaam xuux ak goloog xajak lépp lépp yomboon xam naa jóge jamono yàpp yomb na ba moom dara xaraamut xeeti naan yi tamit benn xaraamutoon sàngaraak lépp benn xaraamutoon gannaaw si gi nag ci la yàlla segg yu xaraam yi mu génnee ko ci biir yu dagan yi mais cosaanal mbir yi lépp a daganoon ñu ne aaya koy tegtale ci alquran mooy huwa alladi xalaqa ma fil ardi jami'an su boobaa nag xalaqa bi maanaa axala yàlla dagana leen lépp lu nekkoon ci kaw suuf waaye foofa la xem nag buñ ci continuer ne li ci kaw suuf lépp dagan lu ngeen neex def ko ca loolu tamit njuumte la boo demee ki téere bu ñu tuddee maanaam al adduwaa tafsir bu baax la moo koy wax di ko leeral kon léegi loolu pare na ca bind nañu bindalal ñu léegi nag mi ngi ñuy wax di ñu ñaax lim ñu defal fa lu ñu yàlla defal de mi ngi ñuy ñaax defal gim ñu defal suñu maam Adama bindal ñu suñu maam Adama ba pare muy premier nit yàlla jël ko def ko muy xalifaam ci kaw suuf buy wëyal xam nga loolu daraja ju rëy la jooju daraja ku ko defal sa maam soo amee jom war a gëm ki defal loola sa maam war koo wéetal loolu nag lay wax si nii boo gisee mu koy wax tamit ne inni jaa'ilun fi ardi xalifatan ak la ko malaaka yay tont ak iblis li ko waraloon mooy yàlla bi mu bindee suuf ba pare mu tàllal ko bind asamaan installé ko dafa jël malaaka yi dëkkal leen ci asamaan malaaka yi nag malaaka mu la gën a dëkk ci asamaan ju gën a kawe rek moo la dàq jaamu yàlla mu la gën a baax bu la dëkk ci asamaan moo la gën a néew jaamu yàlla moo la gën a xeebu mu jël nag suuf si dëkkal ci jinne yi asamaan si première mu dëkkal ci malaaka yi deuxième malaaka yi ba mu jeex léegi nag jinne yi bañ leen dëkkalee ci suuf ñu nekk fi di yàq suuf di moy ci ak njaalo di rayante rek di turantey deret loolu nag métti yàlla yàlla ebal malaaka ya nekkoon ci kaw suuf ne kaay leen ngeen dem ci ah, ci suuf ngeen dàq jinne yi jëlee leen foofa ñëw dàq leen jinne yi dem dëkk ca xuur ya dëkk ca montagne suuf si nag wéet su ko defee nag ah, malaaka ya nekkaale fa ñu ngi boole di nekk ci asamaan di nekk ci suuf léeg-léeg ñu yéeg ci kaw dem jaamu ji yàlla léeg-léeg ñu wàcc di jaamu yàlla iblis nag comme dafa daan ànd ak ñoom ca loola nekkoon bëkk néeg léeg-léeg mu yéeg jaamu yàlla ànd ak malaaka léeg-léeg mu ak malaaka yi moo tax ba yàlla lay digle mbir yi mu fekk ko fa ba mu neen usjudu lee aadama iblis fekk loola ca ca ndigle yi mu bokku ca léegi nag euh, ci loolu dàq nañ ne la suuf toog ab maanaam ab diir kenn dëkku fi loolu mi ngi mel tey réew moo dem bu ñu amee problème ci affaire yi coup d'état wala euh, ba gouvernement ba am problème ñaareel dañuy wax ne kon nañ jël kenn mu huutuwaale président bi feek juróom benn weer ba ñuy defaat ay wate nangam ak nangam loolu nag moo doon xuut ak malaaka yi ci suuf waaye du xuut pour ñu fee nekk carrément rek noonu nga ko mën a déggee kaay leen ngeen nekkaale fi ba mu xuut ñu fi nekk bañ fi nekkee nag diirab juróom benn weer yooyu ci waxin yàlla nekk léegi nag dama fee bëgg a andi ku fi ku fi xuutu jinne war a ñëw dëkk fi nag inni jaailun fil ardi xalifatan malaaka yi na gis seen bopp mooy ki wane woon ne man kat juróom benn weer laay neex mu ne damay far toog léeg nga dégg ko malaaka yi ne yow yàlla koo xutati ñun doy nañ di loo koy xutaat ñun doy nañ atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dimaa da nga fii nar a andeeti ki fi newoon rek kuy yàq suuf di agressé tour deret kuy yàq suuf topp ba kanam di mooy yàlla ñun doy nañ ndax wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lakka ñi ngi wax qualité yi ñu am yàlla ne baax na inni alamu ma la taalamuuna xam naa lu ngeen xamut ba bàyyil bañ xegg ca nag loolu nag lay wax si nii ci aaya yi ñu bëgg a firi moo tax sama borom ne wa fàttalikul id qaala ba waxee rabbuka borom sax lil malaykati ñeel malaaka yi ne inni naka man jaailun aji def si laa fil ardi ci suuf xalifatan ku may huutu muy muy aadama xaaloo malaaka ye ne ko atajaalu ndax da ngay defati fiihaa ci suuf man yufsidu kuy yàq fiihaa ci suuf ba mel ni jinne yi fi nekkoon wa yasfiku muy tuur dima a deret te wa nax nu ñun ñii nu sabbihu ñu ngi sax dàkk di la bi hamdika mbir mu ñuy làmboo sant sa wanu xad sàllal maanaam laka ñaan la su ko defee nag xaala sama borom ne inni naka man alamu xam naa maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci mbiram xilaafa ak maslaha ga foofa rek wa allama la xamal moom yàlla aadama aadama al asmaa tur yëpp kullaha yëppam laa wax suma aradum topp mu gaaral tur ya xalal malaakat ci malaaka yi fa qaala mu ne am bi solo leen ma bi asmaa yi haawu laay ki tur yii gaay lépp a nga fa woon in kuntum dem nekk ngeen saadiqi ne di way dëggu ne munu maa bind ku leen gën xaaloo malaaka ye ne ko subhaanaka tudd nañ sag sell la xam-xam danaa di ñu ñeexal illaa maa alamtan lu loo ñu xamal te lii bokkut ci innaka naka yow anta yow laa wax alalimu yaay xamaa kon bi hakimu yaay ki xereñe te lii ñun xamuñu ko foofa nag yàlla wane ne ak xilaafa ak mage du ko yore yàgg fi ak xilaafa mbaax du ko yore mais xam-xam a koy yore jël aadama rek mi mujj juddu roof ko xam-xam boo xam ne nekkul ca malaaka ya te malaaka ya ko mag ñoo ko dàq jaamu yàlla yàlla nag ne ah mi ngi nii nag kon euh, xam-xam ci laay fale xam-xam ba wax ma lii booba nag foofa dara amul lu fa nekkutoon lépp lu ñuy utiliser fii tey ci àdduna ma nga fa woon télévision nuñ koy taxalee ma nga fa rajo niñ ak nuñ koy taxalee portable ak niñ koy utilise mbaxana ak nuñ koy solee ay yére bàyyiwul dara site internet yi nuñ cey duggee lépp amul dara al asmaa kullaha bàyyiwul dara malaaka yi xool xamuñ ca dara ah, yàlla nag ne aadama nag yow laa sol xam-xam bi xamal leen luñ cey déggee kon ki xam lii sa warugal mooy xamle boo xamee rek xam leen te yàlla tax mu xamal leen moom tamit yàlla nag ki xam nag comme moo leen xamal ki muy xamal da ko war a teddal da ko war a kon nag usjudoo li aadama yéen ñoom ñëw leen ni root sujootal aadama su ko defee nag ñi màggal ko iblis moom xool ak màggal xool tamit yàgg jaamu yàlla ne maa ko fi maa ko dàq jaamu yàlla maa ko maako ko mag ah, maa ko gën ko saan ah du ko du ma ko sujootal lu tax mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin yaa ma bind ci safara ki nga bind ko ci ban naka lay safara mi am leer di sujootalee ban daanu na ñaari yoon ba mu demee ba ca kanam ci la door a xam ne gën safara yaakaar naa gars yi yëngatu ci pàkk yi xam nañ ci dara boo jëlee juróomi million denk ko suuf juróomi at boo ko joxe mu jox la 30 waaye boo jëlee juróomi million dénk ko safara une minute laa may mu lakk ko léegi léegi du ko mat sax kon moo ko gën moo tax keroog moom ñoom ñëpp wax nañ ko ñoo tax ñu ne yàlla layta nii kuntu turaaban kon daanu na beneen bi tamit daanuwaat na tekkiwul ne ku la gën cosaan moo la gën man ngaa gën nit ki cosaan yaa ko gën bàyyi fuuf gën ko maam fuuf mu ñëw gën la mbir mi nekkul foofa kon même bu fekkoon ne gën ban taxul mu gën aadama kon mën naa wax ne maa ko gën ko saan waaye taxul nga gën ko kon daanu na ñaari yoon moo tax kon di xiyaas naan maa gën nangam ak nangam te loolu bëri léegi suñ penc mi rek koo wax rek nga ne ñun garmi lañ ñun gararal lañ ñun sëtu diw lañ boo neexee sëtëb diw te mënoo niinal kenn lu muy jariñ boo neexee sëtëb diw ngaa war a mën a niinalaate waaye boo ta niinal kenn du jariñ dara kon aaya ji pour ñu man cee dëgg-dëgg dugg ci dañ koy lebaat rek ba yegg si technicien bi mooy xamal li ñuy may ci waxtu wi euh, buñ ci ñëwaatee dañuy wax digg xilaafaak aadamaak la ca ajoog la ca aju loolu buñ fi del siwaatee lañ koy gën a leeral incha allah yal na yàlla ëndi fi ci jàmm ci barkeb sayyiduna muhammad liñ ci yàq xam naa bari na yàlla nañu ko yàlla jéggal liñ ci xam yàlla nañu yàlla may kartan guñ ko mën a jëfee ci barkeb sayyiduna muhammad san sa barkeb alquran mu mel tey na suñ plateau bi moom bokk na ci plateau yi gën a riche tabaarakallaahu ay doomi soxna di ay boromi xam yoo xam ne mënoon naa sax yolleeku nànk rek ñoom ñu ñëw toog fii te su boobaa kenn ku ne ki ñoom danañ wax lu gën a leer fuuf li ma wax ñooñu bokk na ci al oustaz Omar Ndiaye mii toog tabaarakallaahu alimul allaama yal na yàlla dëgëral ak seydina oustaz Alioune borom xam-xam la macha allah sëriñ Abdourahmane Niass yore daara ba amoo di borom xam-xam tabaarakallaahu al oustaz Aliou ñaan gis naa ko fi sëñ Muhsin Ñas alaaji Keeba Njaay tabaarakallaahu alaaji Malik Njaay tamit nekk nit ku bëgg alquran heure bu nekk maga ca sëriñ Abi Ñas ñoom ñëpp gis naa leen fi alaaji Jim Jàllo mi ngi fi al oustaz Habib Ndaw lu mat juróom-ñetti at mi ngi ànd ak ñun bay Mbay Njaay gis naa leen tabaarakallaahu ci plateau bi ñu ñëw wétt la ñu ci yal na yàlla jàppale leen jàppale ñu defal leen tawfiq ak taysir xam naa ñi ma gis te mënu ma leen a lim rek ñu jéggal ma beneen yoon rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.